gannaaw bi leen nuyoo nu ngi leen di jaajëfal ci suñu rubrique c'est pas sérieux mais nag président moo ko bëgg nii nee na képp ku nekkati ci organ de presse na ngay sañse sol lu rafet sol lu toog maa la ko wax te moom mooy dëgg parce que journalist warul la def check down journaliste wala bokk animateur sax laay wax ak ñëpp ñi ko bokk métier mi kenn waru cee sol ay sagarax yu ni mel na ñëpp ay sañse foor léegi nag lu graaw lañ leen di jox tey comme no comment dañuy dem palais de la république falan gis ku génn ak xottu bouteille yu bu vide doon wëri gaz ndeke feebar bi fépp la et puis fépp ay miti allié dañuy dem vie jox nu élément bi corote non c'est pas vrai ah d'accord pour yéen bu ngeen ko tegee dig da leen di woolox yooyu loolu dara newu ci manquement gaz bi fépp la ne ok amul problème ma joxe deuxième info bi xanaa bii di ngeen ko teg bokk voilà beneen bi nag <laughs> ku nekk xam na ne fi mu nekk nii coow lu rëy dafa am fii ci suñu groupe Futurs Médias bi parce que bu nu demee nag ba ne caméraman yi dan leen di remplacer yóbbu leen fa monteur yi jël monteur yi jox leen caméra yi ñanoon doon maquillé ñu yóbbu leen ca <laughs> jox leen administration bi ñu géré ko waa administration bi nag ñam coono yi sur le terrain réunion boobu nag lan leen di jox ngeen xool xam na nag vraiment am réew nii lay doxee des fois kii war naa mën a remplacer kii gis nañ ma doo daloon maquillé ba yàgg toog di def yeewu leen lay di tigre ak leneen ak leneen ak leneen et puis looloo tax am réew avancé ah des fois nit ki fii doon fooram nu jëlee ko fii yóbbu ko fii léegi vieux corote noo dem allié vieux indi élément bi ah bon ok non je comprends xam nga yow photographe nga woon yow photographe nga woon tëboo rek doon réalisateur déjà lii rek boo amee nga war a mën a jàppale ñu ci des tam pour lan nu fermé grawul pare naa ci